du ma mel benn góor bu may jël di ma tuuteel di ma ñàkkaloo fayda baa dama duggal ci yoo xam ne man nekk ma ci message bi nag sama ex jëkkër moo ko moom monsieur Fall yow yaa moom message bi bugguma woon ci sax wax parce que dama jàpp ni que man ak yow dund nañ lu ne on a vécu tout on est parti partout a traversé beaucoup de choses ba tax na lu ñaaw waruma ci yow lu ñaaw waruma sama gémmiñ jóge jëlee ko sama gémmiñ dem ci yow mais dafa am xam dafa am loo xam ne bu amee yow danga koy nangu man ma nangu ko noonu moon ci wax hier j'ai eu Gabriella Kane waxtaan naa ak Gabrielle j'allais même pas en parler mais trop c'est trop Gabriella elle n'est pas au Sénégal elle en Côte d'Ivoire déggante naa ak moom quand elle m'a dit que yow da ko wax ne que man sa jabar laa ba tey dama choqué dama choqué dama choqué tey encore une fois Moustapha Diazaka doomu Mame Gow Diazaka je donne des noms parce que je n'ai rien à cirer damay wax tuur yi parce que dama bëgg mu leer Talla Diazaka woo ma naan madame Fall dama bëgg mu leer monsieur Fall man ak yow sekkatuñu sëy tu es parti je suis parti et je ne veux pas expliquer aux Sénégalais les conditions qui ont fait que ma dem bëgguma ko expliquer parce que su ma ko expliquer wee dina ñaaw ci yow te dina ñaaw ci sa famille dama bëgg nag li raay waru suuli sëgam respect mës na dox sama diggante ak yow bàyyil di wër naan nabu sama jabar la nabu dem na nabu bàyyi bàyyi nabu saayum naara nabu she's gone nabu biddéew la woon sa àddina danga ko sàgganee nabu dem na tey nabu mi ngi ci yeneeni loxo macha allah di waajal nag sëy bu am jot ngeen après rek na leen jox détail yëpp macha allah je vais bientôt me marier avec quelqu'un de très important bugguma dugg ci ay détails parce que c'est pas le c'est pas le cas yàlla may na ma jëkkër ju am maanaa jëkkër ju am solo ku ma xool ni ma mel nii nga xam ne man mais maa ngi ay loxo yu wóor maa si maa ngi si jàmm ah te du ma nangu nag nga yàqal ma sama jàmm may nga ma sama baat dem naa yàlla may na ma si ñaari weer ma xamante góor gu ma bëgg mu xaar sama idda jeex te mi ngi may waaj a takk. kon bugguma ay yaama wax ak moo ma wax fàtte ma fàtteel ne mës na ñoo sëy mais ay ay jigéen bëri nañ fii yaa beaucoup de femmes pour nga ak ak si passé bi man ak yow man ak yow mënatu tane ah maa ni woon sekk ñu bàyyante maa waxaat la woon woon na sekk nañ lu raw bàyyante vraiment est c'est la dernière fois je te préviens que may dégg nit di ma woo sama téléphone naan ma nabu madame Fall wala Nabou Ndiaw nee lii wala lii maanaam yow jeex na yow respecté sa aaw sax dëgg fa yow wala moom gënewu fii li muy ko mu woo ma ma samay feem mu def ko wax ko moom mu ay darab yu set la ay vaisselle ay chérie je ay mon cœur xam nga ay man lu ma am may naa ko nit kon bu dee da ngaa manqué femme manqué jigéen bu la toppatoo manqué ay affaire de féminité mais danga may wax